حاجة أحمد أيدها بسم الله waaye dañ waxoon ne dañ koo rey ci HLM Grand Yoff ah termine yéene kaay nee na bu ñu sukkandikoo ca police ba daal Lamine Cissé bii daa mujj xaru i maa la wax lii parce que ba enquêteurs yi kon demee ba ca bërëb ba fekk nañ fa ñaar ci ay bank yoo xam ne ña nga nekkoon kon te ay suufu tànkam dee te ñu ngi laam-laamee ne ñaari bank yoo yee la taxawoon ginnaaw ko kon la dëpp sànni boppam mbir ma kon mujj am laas ne ay firnde yu dul dañ la ne moo mais daa mujj xaru la sabab nag mu xaratu dara ñaar ci ay soxna kon la Lamine yore woon kenn ka la mujj yeewi ma nga France keneen kay ñoom ñaar am nañ ay jafe-jafe ba nekkatuñu kon Fatou Diallo ma nga ca Cameroun ke 2007 ba léegi ni lee l'observateur ne jabaram joo dee Fatou Mata nee na gëw ma ne sama jëkkër ji daa xaru le pays au quotidien googe moo tax ba Cheikh Béthio mi ñu denc ko kon te kaso ba nga xam ne moo nekk ca diwaanu Thiès ke kaso ba ca diwaanu Thiès googe fa la yëpp wutali kon ni ki démb alxamis ma nag bu alxamis ke kon tombé ak bésug laylatul xadr la war a mel Ê, ay coowal la am na loo xam ne kon yëngu na ah parce que ne Macky a la kay daa bëgg a respecté assise nationale yi kon lañ ca wax lii daal tax na ba Mbaye Ndiaye ministre de l'intérieur danañ ko fa jëlee ko kon ca boppal Sénat ba enquête yéene kay ne Macky Sall day la ko fi Abdoulaye Wade kon bàyyi loon ah nee na ko tasaar ca digg ba libération yéene kay ne Macky yemu ca ndax ndaxte nii lañ la lu ci tolloo juróom ci ay permis ah mi ñu maa la wax lii dee di alal ji ñu ci bëree bëri nag doon xalaat ne wàllum xaalis a làqatu kon ca ginnaaw le quotidien yéen a kaay ne waa ARMP day d' ñu kon ci contrat bi nga xam ne mooy dox ci diggante nguurug Sénégal kii ak Mamadou Racine Sy directeur général u ARMP di Sayer Dian nee na contrat bi jaarul ca yoon ah te yéen a kaay mujj naa gagné Mamadou Racine Sy le populaire ne centre bu bees bi nga xam ne kon maanaam fa la ñuy jàmbare oto ya visite technique ah xayma yi nga xam xamni ne nañu ko day fukki jooni ci ay damar wiss nañ leen ñaari jooni ya ak ñaar fukki juróom di nañ leen le soleil yene kay ne ñi nga xamni kon ñoo accidenté ci yoonu kafir ak tambakunda dee nguur gi nee ñom ñepp dana leen kon jël en charge faj leen kon ci l'hôpital ya réew mi quotidien ne aéroport dakaru gi ah ndekete nga dal ci ay mbirum par parlo ay mbirum xarito copinas lañu ko lal aéroport Dakar gi dañu ko jël dal lem ko waaw te ay copain dal ay xarita fa nek di ndaataatal di gunda ndata ko noos di def lu leen neex amna ci ay service yoo xam ni maanaam ay société daal waaw weer wu dee wu ne danañu am téeméer ak juróom fukk ci ay millions cent cinquante millions allahu akbar directeur général yi nga xam ne ñoo fa ne ndàmp kese ndàmp laa wax de ndàmp ñaari millions danañ koy am weer wu ne allahu akbar tribune yéene kaay ne transhumant yi la cam fàq maa nii la de fu tooy ñu taj maa wax lii ñëpp a ngay buuxante kon ca buntu kër Macky Sall ga te moo ni day ka ñu àndaloon ñoom ñoo fi nekkoon di ko taggal ay juróom ñaari maamam xoolal leen ma Adama Sall moom bokk na ci nga xam ne kon ñoo njëkk kon te Macky Sall ñu ne deet ni waay Serigne Mboup bés ne ma ngay campagnal kon Macky Sall Abdourahim Agne non Agne moom kaa la le cas Abdourahim Agne waaw waaw waaye li maam lees Camara wax rek mooy dëgg Abdourahim Agne daal danee nii rek ngir président bu toog mu takk ay bagaasam kon ñu bil la yéen a kaay gi ne transhumant yi daal di fàqmaan yi ngeen gis nii du ñu dara lu dul ay jur lañ yoo xam ne rek ay mala lañ pour fu am ñax mu tooy ñu ne fa saax daju fa ñoom daal ça dépend ci taw bi kese waaye lii lépp nag Arona Dialla milliardaire u Macky Sall bi nit ci bëree bëri nekkete kon moo leen ronk xooleel ma Amadou Samba Kane bu loon as takk na ay bagaasam dem na ca Macky maître Ousmane Sey dem na de yéen a jàpp transiment ah, giir yi nga kon bon ci li yàlla wàcce kon ci suñu ñu yëngu ci démocratie bi nga kon mi ngi def ay kanam l'office ne suñu assemblée nationale bu ba nga ñaan rupture de bëggante wuñ li xew ne Cheikh nañ ko kon maire bu bëgg nañuy président ak député kon maire ya le pays au quotidien ne média plainte ba yegg na de yóbbu na l'observateur ak RFM sa yoon même bu dee sax gars yi kon indi woon nañ ay jubbanti ñoom waa lof sax yoo jee Bougane Gueye Dany ne dañoo tudd turam kon ca coowal lonaas koo gee daa bëgg mu leer le pays ñoom ñoo ñee danañu jàkkaarloo kon ca tribunal ba fukki fan ak juróom ñett ci weeru septembre kon lay doon dem na ca lamb ja Père Birahim Ndiaye tey mi ngi commencé xamal Modou Lo boppam Père Birahim Ndiaye ne Sa Thiès ak Malick Niang wóoruñ ci Modou Lo ay menaces lañ ci Modou Lo attention Modou <laughs> wo la ilaha illallah tey ñaata lañ am vingt quatre wala vingt vingt cinq non vingt quatre vingt trois alaaji ñaata la ñu am tuddal nga ma vingt wala vingt et un rek mooy fëgg naa la mbéj bu bon wo alaaji jëlal tëjal tëjal tëjal tëjal ay ah.